Info7 avance pour les réseaux sociaux. salaam mbokki sa fan fi TV maa ngi déggee ñëpp di ziar ñëpp di ñëw ngeen si information tàggat bi tamit la mardi 9 août dañ koy commencé club bi di Paris Saint-Germain bi nga xam ne am na accord bu mat sëkk ak joueur Napoli bi di Fabien Ruiz kon na Paris fu mu toll nii nag Napoli la war a waxtaanal pour am accord bu mat sëkk si ñett parties yëpp kon daanaka ay détails moo des pour Fabien Ruiz nekk joueur Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain nag ñu ngi waaj a waaxu Real si dossier Fabien ndax Real ñoo yàggoon a nekk si dossier waaye nag defuñu woon benn jéego pour ko ndax dañoo bëggoon bàyyi ba 2023 ngir songu dossier bi. kon euh, si diggante bi nag Paris ñoom euh, waxtaan nañ ak joueur ba am ak ñoom accord ba ñu ngi waaj am accord ak Napoli beneen joueur bu Paris yàgg bëgg muy Milan Skriniar kon lu leen si. Euh, Inter di laajte moo cher moo tax nag euh, léegi mënuñoo am jour bi waaye fu toll nii nag euh, taxul ñu bàyyi nag ñu ngi waajal beneen offre pour euh, jour jour bu Paris Saint-Germain bëgg may défenseur Leicester bi di Wesley Fofana kii di Wesley Fofana nag bu Paris rek nekk si dossier am Chelsea intéressé ba jot nañoo def ñaari offre waaye ñaari offre yëpp Leicester da ko dàkk defoon nañu offre bu toll si ak beneen toll si 82 millions d'euros Leicester kon naa Paris ñu ngi waaj jënd waaye ñu ngi waaj tamit libéré seen yenn joueurs yi nga xam ne soxla nañ te bokk nañ sa kii di Idrissa Gana Gueye nekk doomu Sénégal Paris saint ñu ngi koy waaj a mu dem te Paris ñu ngi siy waxtaan ak club yi di Everton. kii di Idrissa Gana Gueye nag moom moo bañul dellu Everton waaye ba léegi nag négociation yi antuwul pour mu def retouram foofu sa Everton. beneen club nag ñoo def offre pour doomu Sénégal mi yenn Nottingham Forest mi nga xam ne yéeg na Premier League saison bii nii. def nañu offre pour Idrissa Gana Gueye waaye Gana Gueye dafa dàq offre Nottingham Forest bi jamono nag Nottingham Forest ñu ngi ciblé beneen sénégalais muy milieu terrain bi di Cheikhou Kouyaté nekk foofu sa Crystal Palace ñoom moo la ñu bëgg may renforcer seen milieu terrain bi. yeneen ñaari joueurs yi nga xam ne bokkatuñ sa plan Christophe Galtier te mën nañu jóge Paris muy ñaari défenseurs di Thilo Kehrer ak Abdou Diallo nekk tamit moom moo doomu Sénégal ñaari ñaari joueurs yooyu yëpp West nekk foofu sa Angleterre. moo leen di ciblé waaye lu mu bëgg nag mooy recruter si kenn pour renforcer défense Alexis Sanchez ñu ngi koy xaar foofu sa Marseille si biir semaine gi mën na ñëw motal la transfert am pour signé ak Marseille gannaaw bi nga ne dagg na contrat am ak Inter de Milan beneen doomu Sénégal bi nga ne mën na jógee si club am muy attaquant bi di Boulaye Dia Boulaye Dia am na accord ba ak uh, club bi di OGC Nice kon na waxtaan ba déggu na si diggante Boulaye Dia ak Nice fu la war a waxtaanal defoon nañu offre bu njëkk pour uh, Boulaye Dia waaye waa Villarreal dañoo dàq offre noonu. accord Marseille am na si diggante Chelsea ak Monaco ngir uh, waa Chelsea abal leen uh, seen joueur bi di Malang Sarr dañ leen koy yàlla ko option d'achat kii di Malang Sarr dina def ko visite médicale am lu yàggul dara ngir signé contrat am ak Monaco. ñu jàll Angleterre Manchester United gannaaw bi nga ne dossier Frenkie de Jong dafa xaw a dëgg xool yeneen alternative te kii di Adrien Rabiot nekk foofu sa Juventus bokk na si a signé pour uh, su Frenkie kii daal Adrien Rabiot dese na ko benn atu contrat ak Juventus waaye waa Manchester bëgg nañ koo signé ngir euh, suñu mën a lam Frenkie de Jong officiel na ak club bi di Wolverhampton transfert mi ngi dëkkee Wolves 31 millions d'euros accord Morsec am na si diggante West Ham ak Fulham pour transfert kii di Issa Diop ñu ngi ko xayma si 20 millions d'euros Issa dina signé ak Fulham contrat juróomi at ñu jàll Real Madrid kii di Ikera Bravo nekk foofu sa Bayern Leverkusen daanaka waa Real signé nañ ko kon Real ñoo dugg si dossier bi gannaaw bi nga xam ne Atlético Madrid ñoo si nekkoon depuis lu yàgg lu ñu bëgg nag may signé ko yóbbu ko si Cassia mi équipe bu bi ba mu gën a ñor ñu soog ko yéegal comme nañ ko defoon nag Vinicius ak Rodrigo léegi officiel na Isco signé nag club bi di Séville ñu jàll Barcelone Barcelone nag fu mu toll nii ñu ngi négocier ak ay jegeñaale Lionel Messi pour dellusi ko foofu sa Barcelone lu ñu bëgg mooy contrat am su jeexee ak loolu nag euh, mi ngi lu ñuy gën di continuer muy gën di mën a nekk ndax euh, Lionel Messi tamit bañul la def dellu seen foofu sa Barcelone lu mu bëggoon nag euh, mooy dem foofu sa championnat États-Unis su contrat ak Paris jeexee waaye jamono yi nag Barcelone ñoo ko bëgg a dellu si waat te Lionel Messi bañul la loolu. Barcelone lu ñu proposé bi Lionel Messi mooy benn wala ñaari atu contrat ngir mu def dellu beneen joueur bu Barcelone bëgg ma yemi réserve Manchester City bi di Bernardo Silva ba ñu ngi waajal seen offre kon Manchester City ñu ngi si doon la laaj 80 millions de dollars Barça nag ñu ngi waajal seen offre ngir milieu terrain Manchester City bi foofu sa Barcelone ñu géré wàllum yoon pour club bi nag dañoo gis ay contrat yoo xam ne jagul muy contrat wu signature joueur yi di euh, Dayong Ter Stegen Langley ak Piqué si octobre euh, si euh, weeru octobre 2020 kon boobu la ñu signé woon contrat bu ñuy mujjee prolongé seeni euh, contrat ak club bi te boobu nag euh, direction bu njëkk bi ñoo fi nekkoon muy euh, direction Barthélémy kon Barthélémy balaa moo démissionné dafa signé woon contrat ak ñeenti joueurs yi yokkal leen seeni salaire te contrat yi nu ngi ko signé dafa am ma ay ñu laaj kon loolu tax nag ñi géré wàllum mooy yoon si club bi nag dem ba gis contrat yi ne jagul na ñu ngi ñaan nag joueurs yi nga ne dañoo mujjee woon a signé contrat ñi ngir ñu annulé ko maintenir contrat yu njëkk yi lu ko may nag dinañ leen yóbbu si yoon te kii di Frenkie de Jong bi nga xam ne fu mu toll nii nag Barcelona ñoo bëgg mu jógee si club bi wala na si moom nag contrat bu mu bu mujjee na a signé avant 2019 la Barça bëgg a maintenir te loolu nag salaire am taxul mu toll comme nu mu toll léegi avant ñoom Bartomeu di ko yokkal contrat am kon Barça mën nañu am luñ bëgg si kii di Frenkie de Jong ndax nangul woon na wàññi salaire ñu jàll Allemagne léegi officiellement Anthony Modeste signé na ak club bi di Borussia Dortmund ñëw remplacé gum Sébastien Haller bi nga xam ne dafa am na jafe-jafe wér-gu-yaram. ñu jàll Turquie léegi officiel na ñaari joueurs yi di Lucas Torreira ak Draghici signé nañu ak club bi di Galatasaray foofu la ñuy yamale foofu la ñuy yamale xibaar yi di leen noo jox dig daje beneen yoon di leen ñaan ngeen na abonné te di activer cloche de notification bi ngir mën a jot information yi. Thank you.